président Macky Sall bi mu jugee ci nguur gi boobu ba léegi ay responsable politique yu bëree dañuy wut fu ñu dellu ku ci mel ni Ismaïla Madior Fall mu nekkoon ministre de la justice moom mi ci delluwaat sem ci biir université ay commentaires yu bëri la jur ki nga xamante ni professeur droit public la dafa bëgg ñu yóbbu ko fi nga xamante ni moo di fond nekk institut de recherche ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk loo xamante ni ñi nga xamante ne syndicaliste lañu di waa SUDES naqarlu nañ ko bu baax a baax ci biir bataaxal bi ñoom ñu ngi ciy wax ne ñetti mbir lañu bëgg benn bi moom mooy def ab enquête ci yan anam la ñu affecté ki nga xamante ni moo di Ismaïla Madior la ndax tamit respecté nañu li nga xamante ni moo di procédure yi ñoom ñetteel bi mooy li ñu bëgg Ismaïla Madior la toog fi nga xamante ni fa lañ ko xamee woon fa la doon jàngale di faculté des sciences juridiques ak politique ñoom syndicalistes yi laaj nañu leen ñu ni ñoom amuñu benn problème personnel ak ki nga xamante ni moo di major Madior Fall benn laaj rek samp lan moo tax ki nga xamante ni moo fi nekkoon ministre la justice mu bëgg a jóge ci faculté bi mu nekkoon ndax ragal la ci ànd gi mu doon ànd ak président Macky Sall wala sax dafa bëgg leneen lu kawee ci biir njàngale mi lu wóor moom mooy recteur bu université Cheikh Anta Diop yóbbu na li nga xamante ni moo di demande fële ci IFAN waa IFAN nag ci ñoom la des ñu wax ndax Ismaïla Madior Fall day toog ci faculté de droit wala daf leen di wuy Ismaïla Madior Fall nag jokkoo nañu moom mu ne dundam yépp université la te dafay wéyal di ko def amul beneen explication bu mu ci